lamto e lamboto e weybati agge go taway kaɗo waɗa way mustafa ahmad lajo way ausubillahi min seytani irajim bismillahi rahmani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ni seetaante di nu déglu dellusiwaat nañ fii ci sunu émission bi nuy tuddee ku mburu tudd ab dëkk ñu di ko amale fii ci 24 actu tey jii ñu am fi gan tedd bu màgg goo xamante ni moo di sëriñ Abdoulahi Seck Mouride Sadiq ñu fas yéene ànd ak moom nag waxtaane yaakaar naa ne ñu bari ku ko gis di nga ko xàmme di nga ko xam bu baax a baax ci dëkk bi mm, ginnaaw bu nu ñaanalee sëriñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko di siyaare mbokki jullit yëpp ci weeru tedd wu màgg wi di sahru ramadan mubaarak eh, sëñ Abdoulaye ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay delloo nuyu bu baax. li la fay nuyu bu baax baax di la siyaare. mën na noo dellu si waat ci présentation dama ne sëñ Abdoulaye Seck waaw loolu mën naa nekk. Mhm. loolu bu ma ko déggee sama xol day sedd. Mhm. day sedd ba àgg si lool. daa mhm. mën naa mel ni glace wala mu romb ko. waaw loolu ku ma ko wax. su ma fekkee ma mer damay bëgg. su ma fekkee ma tàng damay sedd. su ma fekkee ma jaxasoo jaxasoo gi day deñ. ma fekkee ma jàq jàq itam day deñ. su ma fekkee ma tiit sama xel tam mën naa dal. Mhm. waaw loolu daal. Mhm. Cheikh Abdoulaye Seck murit moom laa bëgg ñu duma ko woowee ba koroog may wàcc liggéey. Mhm. incha allahu taala. Euh, mën na noo dellu si lu ko sabab fii xam na nan murit kun ko wax mooy ku jaayanteeg sëriñ bi. moom la ñuy tuddee tur woowu doon taalibe sëriñ bi. mën na noo dellu si ci yow sa digganteek sëriñ bi ak lan moo la dugal ci yoonu murit. waaw li ma dugal si yoonu murit bi si njëkk ma ndogalu suñu borom. ndax bu ko yàlla dogul toon du am mm-hmm. te am loo xam ni mm-hmm. bu ko suñ borom dogalee sa jëmm mm-hmm. bëgg na la ak tawféex la ak cant la dama yàgg bëgg sëñ bi euh, <coughs> Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ak waa këram mm, ba ma gën a nekk tu tànk ba fii ma toog ba ma nekkee daaray kokki di wattu alxuraanu karim mm-hmm. téere yàlla bu tedd bu sell boobu nga xam ni moo féete kaw mboolem téere mm-hmm. jege fa daw ñëw fii si Touba mm-hmm. si wetu jëm ju tedd jooju nga xam ni kenn la muy Cheikh Saliou Mbacke nekk fa moom fa dikkee ku naan sëñ Abdou Lahad Jaxate dalal ma moom Maxtaar Jaxate ñoo bokk ndey ak baay mi ngi fii mi ngi dund di ñaan yàlla mu yàgg fi ànd wér man ne fa lu tolloog daanaka at walla ñaari at boobu maa ngi doon tut tànk mhm. ginnaaw gi mboole maag eh, sëriñ Saar war a delloo woon mboole maag eh, sëñ Abdoulaye Jaxate mhm. boobu ay gone yu bari la woon mhm. ñu dugg ñu si pose mbaar maa ngi farlu ku baax pose mbaar ñu toog si ginnaaw doon ay gone yu bari ay pose mbaar yu ñu daal di dem xel kom ma demee xel ko ma ne fa ab diir ku naan galas moo ma yoroon dama jàngal. après ginaaw ko laa fa jege nekkee noonu nekk ma màgg si daal. Hmm. màgg si sëñ Saliou. Hmm. di fi ñëw. ñaata at nga amoon ci daara ja xel war naa mat ay ñeenti at daal. Hmm. xam naa ne waaw xam naa man ñeenti jàng fa alxuraan. jàng naa fa alxuraan waaw. loolu dugal ci yoonu murit laa doon laaj nii sax nga tàmbali woon loolu. lu tàmbali. waaw nga tàmbali ne da ngaa nekkoon daare kooki ginnaaw ba nga jóge fa nga fa jógee nga ñëw fii sëñ Saliou yóbbu la ca daaraam jële ba ginnaaw ba léegi ma wax la léegi ci tàmbali bi ne la Mouride Saade gis la nga takk maxtum. Hmm. waaw waaw loolu de moom rek moom mu ko déggee moom damay damay sama si lu ma fekkee rek hmm. eh, jàq rek tiit ak jàq ak jaaxle ak lépp ku ma ni Cheikh Abdoulaye loolu day tuxu hmm. xol bi daal di sedd ba mel ni galaas wala mu romb ko waaw sëñ sëñ Saliou moom lool la rek ma jóge fa dem xel dem Xelkom après jóge Xelkom ñëwaat Thiès. Mhm. ñëwaat Thiès après jógewaat Thiès delluwaat Koki. Mhm. waaw ma jóge Koki laa ñëwaat Thiès. Mhm. waaw eh, yàlla dogal may may may ñëw. Touba Thiès di jaabante nekk fii. waaw fi moom sama lépp la daal. am naa fi wàccuwaay boo xam daal. maa ngi ko sant Seex Xaadim bu baax a baax. waaw. waaw tey soo mujj laa bëgg a laaj nii wala jébbaloo ko. Ah, eh, ba ma jébbaloo si xol sax yàgg na. Hmm. waaye lii ma def fan yee loolu leeral la. Hmm, waaw. dégg nga wax je. ba ma jébbaloo si xol. yàgg na yàgg na. Hmm. waaye lii ma def leeral la. ndax leeral dafa am solo. du dëgg. Euh, leeral dafa am sol li ma doon def nii leeral te lépp te lépp loo gis dafa am yoon. Mm. mënoo dugg si si si si si benn bunt. Mm. mënoo dugg fenn te jaaroo si bunt bi. jaaroo bunt moom mënut a nekk si àdduna. Mm, fépp foo dugg oto. Alxuraan wax na waa jeex na léegi ma ma ma doon leeral nag ginnaaw nag ñu ngi jeex a jaaxa kii lii la kii laa laa te nit nag moom sa dund war xam li nga doon ak fi nga bokk. ak li nga gëm. boo dee juif ñoo xam ne juif nga boo dee catholique boo dee jullit boo dee lu mën a doon sa xol lu loo mën a kii daal ñu xam ko bala ngaa wàcc. waaw loolu loolu moo dugal si yoon wi ma yàgg bëgg Sëñ Tuubaa yàgg ko gëm. ma bëgg jara bëgg tam. Hmm. gëm ki jara fan ngay jaayaan kan mooy sa sëriñ fi ñu mun la laajal. Cheikh Mouhamadou Mountakha. Hmm. ci moom waaw damaa jóge Sëñ Tuubaa rek dem Sëñ Tuubaa. Hmm. man daal noonu laa ko jàngatee. mooy profité occasion di ko siyaare bu baax. moom di ko siyaare biir ak biti. di ko siyaare bu baax di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi mm-hmm. man dara ñor ma dul sëñ Tuubaa mm-hmm. lay xeeñtu mm-hmm. ba doo gën a doon tut tànk di xeeñtu uh, Seexul Xadim ba agsee moom uh, daj naa xet ga mooy xet gu am maanaa xet goo xam ni àjjana rek la jóge Euh, jamono boobu sax waxuma ko dara. ba bàyyi noonu rek ñëw du ko ferekante muy waxtaan sëñ Tuubaa may dégg. muy mm-hmm. jëf may dégg. ah sëñ Abdou Samad yamul si jëf dong. Mm-hmm. Euh, yamul si. si si si si wax. Mm-hmm. day jëf. te ku ne xam ne ni jëf moo féetee kaw lépp. man moom yóbbu màkk daaw. maa dégg nga. waaw mm-hmm. moo la yóbbu yóbbu màkk daaw mm-hmm. alhamdulilah rabbil mm-hmm. loolu lim ko defal si ay doomam aadama euh, lim bi kii. alfun waa alfun rek. jeex na waaw kenn mënu koo xam. Euh, moom sax xamu ko. dëgg la na ko bu na ko day def ngir yàlla ak yonent ak jëmu Seexul Xadim. Euh, sëñ Abdou Samad di jëmm joo xam ni Cheikh Mamadou Mountakha wax na ko. ba mu fa demee. yaakaar naa ni daaw la woon. dara ñor lu sëñ Tuubaa hmm. waaw waaw te loolu day lu wér loo xam ne képp kuy murit te hmm. sëñ Tuubaa nangul sëñ murit di ko nangul sëñ Abdou Samad hmm. sëñ Abdou Samad dara ñor ko lu Seexul Xadim Seexul jar ko lu ne mu dox ko wax ko jëf ko jëf nag mooy lépp mooy lépp waaw muy borom cër am am am am am am am am cër si sëñ dara dara ñoru ko dara saw ko lu sëñ ma da ma ko daan fréquenté jamono nekk këram gi fii si Daaru Xuddoos mm-hmm. di di déglu ay waxtaanam muy mm-hmm. waxtaan Sëñ Tuubaa ma koy dégg di si jariñu mm-hmm. te lépp di dëgg waaw wax gu ànd ak jëf di dimbali néew doole yi ku ñëw mu dimbali la te yàlla tax te bu caaxaan jeex dëgg de Sëñ Tuubaa loolu la fi nekkee woon li euh, te bu caa jeex dëgg des euh, li tax yàlla bi ñu mooy def lu baax ak yërëm jaam yi def lu baax ak jaamu yàlla te loolu tuuti kii bi waaw waaw ayca te loolu si la si la si la si la si la Cheikh Abdou Samad nekk. incha allah waaw si la si la nekk ku yor jukkoy bàyyam la Cheikh Abdoulaye Lahat. Mhm. ku yor jukkoy waajur mu tedd Cheikh Chouaïb ak maam ju baax ja euh, sëñ sëñ euh, Cheikh Khadim ñaanu yàlla mu yàgg fi lool di ko siyaar si weeru koor bi yow lan nga xam ci sëñ bi sa gëstu ak bi ngay laata jébbalu ci sëñ bi lan nga xam ci sëñ bi ak tey ku la waxoon lan moo la ci dugal dëgg-dëgg loo koy wax nag loo koy tontu. waaw li ma si dugal dugal dëgg dëgg dëgg dëgg xanaa bëgg ak gëm rek ak ndogalu yàlla. Mm-hmm. <laughs> yàlla moom lu lu mu dogal si jaam jaam mun kenn mun si dara. Mm-hmm. lu suñu borom dogal si jaam jaam si dara. Mm-hmm. yàlla moom mooy dogal lu dëkk da am ñoo xam bu ñuy dugg ci yoon wi dañuy gëstu mbindam sëñ bi wala ñu gis eh, ci dara ci sëñ bi wala ñu gént ko wala ñu gis wala ñu leen wan ne la làngam lu mel noonu laa doon laa yow lan mooy. waaw sëñ bi yàgg naa kaa gént. ay ay ay ay yoon yoon. Mhm. nekk naa xat-xat bu ma ma ma nekk suma mhm. ma xel su demee sew xadim rek. Mhm. Euh, loolu day day day day day day day randu fële. maa ngi farliku ba mu nekkee jaama gën sama kër yi ay maa ngi newoon si benn pantre. jamono ñëw ma tawat. fi ma tëdd mënu maa jóg. si weeru koor laa ne du ma du ma jëm sew jëm ju toll seelu xadim ma koy waxal lu amul loolu loolu ku koy def rek jàpp nitu safara nga mm-hmm. yan si yàlla musal ma tëdd fi ma jóg maay feebar ñàkk naa dama daa mel damaa ji gis ku tedd gi si miir bi mm-hmm. mu jàkkaarloog man nii rek am sama benn rak bu ñëw bu naan day faatu mm-hmm. su ñaar yaay ñoo bokk ndey ak baay Hmm. loolu ci weer koor la woon sax. Hmm. mu ñëw dama yee ci xëdd waaye dafa ñëw fëgg fëgg bunt bi maa li ma yëg sax xaw ma ko. Hmm. damaa jékki-jékki ni bëreet mun ma lan la du ñàq lan la mën ko dara daal dem xewlu daal di laal ndox tuddaat yàlla. santaat Seex Xaadim bu baax. xam naa ne bu bu bu bu bu bu bu euh, mhm. ñëwutoon xam naa ne kon waxtu wi. Mhm. ñu ngi naan yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. yow fàttaliku nga yan jamono lu paase bi nga fi ñëw ci sëñ Saliou kañ nga tàmbale nag di ñëw tuubaa di ñëw nii di dem ak dikk waaw si si addi nag laa du takk laa du jàpp waaye yàgg di dem di ñëw daal bari fi mm-hmm. ay ñoom ñëpp ñuy samay bàyyi di samay sëriñ. Mm-hmm. samay xarit. Mm-hmm. di ñu baax di ñu gore di ñu yiw. kenn ku ne lala sa lala lala Seexu Xadim bàyyi yaa ngi ci góor góor def la nga man yaa ngi teg sa tànk ña la yàlla booleel. yaa ngi leen gindi leen teg si yoon siraat mustaqiim mi nga xam ni Sëñ Tuubaa foofu rek la teg woon. ku ne ña yàlla boole yaa ngi yaa ngi leen gindi si yoon bi. di leen di leen di leen di leen jàngal sëñ bi. yaa ngi doon wax léegi ne yow wàllu ngor daf laa neex lool te da nga tuubaa da nga fi dañ la fi ji ngor. te eh, nga yëg bu baax a baax a baax ni nga xam ne ni la njabootu sëñ tuubaa gi baaxee ba tey ubbeeku ba tey ginnaaw yàlla am na bët yuñ la doon xool yoo xamante ni. mën ngaa bëgg sëñ bi waaye mën naa am jaayanteeg sëñ bi mën na laa bañ a kii mais li nga gis ci sëñ bi bu bëgg ko njabootu boppam da nga ko ci yaa ngi koy seere léegi sëñ Abdou Samad ilaa axri ak ñeneen. waaw góor du tiit ba fen mhm. góor du xiif ba sàcc. Mhm. góor du jàpp bàyyi. Mhm. góor du xam fakk. góor du soppeeku. yàlla dogal na. li koy yàlla dogal na. Euh, man nag du ma tagg maanaam man a man a yow yow a ko gën. Mhm, mhm. nga yëg si soxla na naan man la. Mhm. nit ñëpp nit ñëpp la ne la yow la moo gën. waaw man as laa. loolu sax taxut ma ma ma ma ma ñëw du du du du du wala politique wala bëgg daraja wala nangam du daray àdduna. moo tax ma jébbalu. dogaluk suñ boroom la. si biir ndogal gi ma gëm sëñ bi bëgg ko. yaakaar ko doyloo ko àdduna ak alaaxira te sa te Cheikh Xadim lu ko defal du sens merit la. waaw bu caaxaan jeexee dëgg des. Mm-hmm. yow dañ lay gis ngay takk maxtuum yooyu maxtuum loolu yaa koy takk nii di ko suba wala da ngaa yëg loo la ci gën a xiir nii maxtuum waa waaw moom kon ne xam ne cosaan murit la. Mm-hmm. laata may gane si àdduna ay murit ñu ko doon takk. Mm-hmm. damay dem bàyyi fi murit ñu koy takk. incha allah incha allah yàlla waaw maxtuum day loo xam ne mu gënee nekk gone dama koo bëgg. mu gën a nekk dama ko man ñi ma xam si ba may gone. Hmm. ba mu gën a nekk bébé. Hmm. ba fii ma toog di wax yow. Hmm. si ay manière murit képp lan ma la lan ma xamee. déglu xasida jàng di waxtaanee Sëñ Tuubaa di di sama xarit yëpp ay murit lan sama sëriñ yi sant Mbàkke yeeg Cheikh yeeg Baye Fall. léeg-léeg amagul nga kër Touba pour ñibbi si fi di si ma am na ngaa bëgg a jébbalu rek dem di siyaaree dem ak ñëw. waaw loolu moom amaguma ko waaye incha allah bu ko yàlla dogalee rek na am. Mm-hmm. incha allah bëgg naa ko waaye bu ko yàlla dogalee rek na am. Mm-hmm. waaw léegi dama doon wax tuuti. ci si sew Khadim ma ne ma ne Cheikh Khadim lu ko lu ko lu ko lu ko lu ko waaye defal. Mm-hmm. du lu mérito la. moo moo moo moo moo liggéeyal diine islaam. sonn lu kenn dëjut te kenn defut am lu kenn amut. ku wax lu kenn waxul ñu waxal lu dul waxal kenn. Mm-hmm. xasida yaa ngi nii ay ton yu ton macha allah bind ko tagg si yàlla tagg. yaa ngi jàng xasida. waaw maa ngi jàng xasida. yow xasida yi gan moo ci gën a. kii xaqan. Mm. Mm-hmm. jaalibatu maraayib. Mm. Mm, bari na daal. waaw bari yoo xam ni. dama koy dama koy dama koy dama koy dama koy jàng waxtu wu ne. léegi da xam naa ñu ngi léegi léegi si seen. murid de doon wax day jàng xasida di naan café di dem xel koom. di xel koom. Hmm. waaw waaye man li ma gën a neex si murid. Hmm. mooy li bi Xaadim santaane nga neex si. Ah. lim te rek kenn bañ see dégg. yooyu boo nu ko doon leeral mooy lan. mooy mooy mooy dëggal jubal leeral jaamu yàlla. dëggal jubal leeral. jaamu yàlla teg fa nga war a teg sa tànk. Hmm. kenn maanaam jëmm ju ne boo ne murit la joxe sa bopp. Mhm. fépp foo nekk si àdduna. Mhm. nga doon fa représentant. Mhm. sëñ bi si melokaan si jikko si doxalin si lépp. yaa ngi di wax ji. waaw sëñ Tuubaa waaw bu jëkk jëkk ñu doonoon ne murid wala fi sax daan wax bu jëkk jëkk naa murit am jur ab murit ak ab sér ak nama dal yomb na euh, ndax. Euh, booba xam ne mu ni ci yàgg yàlla yàgg yàgg yow euh, bi nga jëbaloo yéeg mbaa déggoo ay baat yoo la naqareeg walla yoo xamante nii dañ lay wax ne nangam ak yooyu mu déggoo ci dara. waaw loolu moom mënut a ñàkk. <laughs> mënut <laughs> dégg naa si ay ay yoo xam ni yu garaaw garaaw yu jégg doye. Mm-hmm. waaye wax ju ñaaw moom dëkkul fa mu jëm. fa mu mm-hmm. jógal cosaanoo. Mm-hmm. wax ju cosaanoo. Euh, mu su ma dee xale tam yoruma xalaatu gone. yoruma xalaatu dégg nga wax ji. te itam du ma dof. Hmm. sa xel naagoo kii yoo dofoo defoo dara xel sa xel nga àndal bi ngay ñëw ci yoon wi te ba léegi yaa ngi moom. dama <laughs> <laughs> dégg nga ne du ma dof de moo waaw du moom dof boo ko boo boo ko déggee mooy. Ah. Eh, am na ñoo xam ni dañ naan eh, xam nga yoonu murid moom eh, ku ne yàgg na ne xas di ma ko ñaaw. Ah. dama ko fay fekk. li nga wax daal mooy li ci am mooy da nga wax. dama dëkkul fa mu jëm. fa mu jóge ci saa na waa xaar tuuti. waaw ah, bi damay jeex waaw waaw dimbali ma ndax lu ab dof moom. Ah. Euh, buñ la ko dee wax. Ah. ngir euh, wàlliwu. Mhm. koo xam ne du. moom dong fa am moom dong moo am ngërmul yàlla. Mhm. Euh, wala ñu la ko wax ngir lislaam mhm. mbégte nga ko def waaye waroo ko def naqar ndax ñi si sos yoon wi lim dégg na ko dégg na lu ne. waxtu waxtu bi waxtu léegi léegi léegi léegi maa ngi saare bu baax. sama benn euh, magu waajur sama di di sëriñ Modou Roqay Seck. Mm-hmm. di sama xarit di sama baay di sama sëriñ di di di di di di ko xam ni wuut na baayam wuutu maam. Mm-hmm. mate ko sëkk biir ak biti di sakk sa fam ne. sagal na leen mhm. siggil na leen si si biir ak biti mhm. di ko di di ma naw mhm. si lépp di ko ma naw si ñàkki ñaan ku ñàkki ñaan la ku nangu ndogalu yàlla ku rafet jikko la wuutu bàyyam wu tedd wa sëriñ Ousseynou Khoudia Seck wuutu wuutu maam maam ma dikke Seck te ñoom ñaari mu dellusi waatoon jamono day wut gara bu ñu ñëw dinañ indaale garaatu jamaa jëlee ko àjjana. Mm-hmm. tappal ko. Mm-hmm. ampal tan na si ñaar rakam yooyu. di mm-hmm. sëriñ euh, afa sekk ak sëriñ góor euh, Gora Seck. waaw sëñ sëñ Modou daal maa ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi. yàggal fi njaboot <coughs> bu baax a baax di ko baax di ko ñàkk ñaan. yàlla yàlla yàggal ko fi bu baax mu dund téeméer at yu ren liggéey gi mu bëgg liggéeyal bàyyi ma ki maam suñu borom kàtt na ko ba def ko defee ko nu mu ko bëggee en tout cas daal maa ngi seede nit ñëpp. Mhm. moom sama xarit la sama bàyyi la. ku baax la tubaarkàlla jeex na kon waxtu wi jeex na kon ñu bàyyi la nga tàggoo tàggoo bu gàtt rek tëj waxtaan wi. waaw maa ngi maa ngi siyaare ñëpp. maa ngi siyaare ñëpp di di di di di siyaare sama mbokk taalibe murid yi. Mhm. di di di di di di di wax ñu dolli ma man daal ku may ñaanal. Mhm. nag ma ñaanal ma gën a góorgóorlu si liggéeyal Sëñ Tuubaa. gën koo bëgg gën koo gëm gën koo yaakaar àdduna ak àllaaxira ma sax si sant sëñ bi sax si liggéeyal ko ba faatu. jërëjëf sama sama sama taaw mhm. Cheikh Khadim laa ko tuddee mhm. te leer gu ma am mhm. naa ko tuddee waa njabootu sëñ ak sa jërëjëf jërëjëf ñu baax sëñ Abdou Samad waaw kay jërëjëf jërëjëf di saar baax sëñ Mouhamed Mbacke di sama xarit <laughs> jërëjëf moom dama lay dalalaat beneen yoon waaw waaw sëñ Mouhamed Mbacke wax dëgg yàlla moom xatul daa yaatal daal waaw yaatal la eh, kon ñu sant mbokk yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ci jataay bi nga xam ne mooy sunu émission bi ne tuddee ku wal mburu tudd dëkk tey ñu dalaloon ki nga xam ne moo di sëñ Abdoulaye sekk ñu Murit Saadef ñu dalaloon ko mu doon waxtaan ci yoonu Murit ak ñi ngi koy sant baax di gërëm seexu naa moo nekkoon ci caméraman bi ànd ko ak uh, sunu mbokk mi Moussa Kane ànd tamit ki nga xam ne moo réalisé émission bi soxna awoon Ndiaye ak soxna Khady Niang moo nekk montar kon sëñ bi ñu ngi lay siyaar baax jërëjëf ah, ok jërëjëf param tuy lamb tuy wey bati la jamba